Eh, diina ji nga xam ne ni rek tout simplement moom lañ ci suñu borom tabaaraka wa taala digal jaarale ko si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lépp lu diis du diine waaw lépp lu metti lépp lu jafe du diine kon nag yaakaar naa ab jullit war naa am pas-pas bu toll ni ndigalul suñu borom ak ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko war a gënal ndigalul boppam moom ndigalul ndigalul bakkanam wala ndigalul eh, meneen mbindeef moo wuuteeg ndigalul yàlla ndax kenn ci lu neexul suñu borom tabaaraka wa taala la taata li maxluqin fi maxsiyatil xaaliq loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deful topp mbindeef ci lu naqari aji bind ji ñaari tomb yi mooy eh, dañuy faral di laaj ñenn ñi ndax tabaski mënees na ko cotiser maanaam ay borom kër wala ay mukallaf yu dajee kenn ku nekk mënta amal boppam am xar dal di cotiser mu xar ñu jënd ko rendi ko moo xam ñu ay mbokk lañ ñu bokk kër wala ay locataire lañ wala déedéet ah, ñuy wax ne tabaski ci njirum Malik mëneesu ko bokk mëneesu la bokk njëg gi mëneesu la bokk itam yàpp wi tabaski tiyaabo ji lañ mën a bokk ak yool bi maanaam nit ki tabaski war na ko mën na ko mu yóbbaale ci ñi nga xam ne nii war na leen yóbbaale waxoon nañ ko ci ci sunu ma bu njëkk maanaam bu sart yi dajee ci kii nga war ko yóbbaale ci tabaski nga war ko tabaski waaleel mën nga koo tabaski waaleel ngeen bokk yool bi ak tuyaaba ji waaye nag njëg gi ak xar mi kenn moo ko mën a moom ay nit bu ñu bokkoon doon nu am xar dañ koy jaay kenn kay kooko tabaskee ko moom bu fekkee sart yi daje nañ mu yóbbaale leen mu yéenewaal leen waaye mënuñu koo tabaskee gannaaw ñoo ko bokk buñ ko bokkee jënd wala ñu may leen ko mënuñu ko tabaskee faaw kenn koy mën a moom wala ko lexal eh, lenn it mën naa nekk nga wut sa ñaari xar mel ni mi nga tabiskee ko yow yéena ci say sa bopp ak ñi nga xam ne nii xay na yow yaa leen war a tabaski waaleel mi ci des nga yéena ci nga dugal ci ku la neex waaye nag moom doo ci doo ci dugg waaw doo ca dugg donc da nga koy yéene ñi ci des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rayoon na ñaari xar daal ne mii man yonent bi sama sama tabaski la maak sama njaboot mi ci des dugal naa ci bépp jullit boo xam ne ni nii e, tabaski ñëw na te jàpp jàppandiwu la kon xar moom ak képp koo xam ne nii amoo na la wóor na yool boobu yaa nga ca beneen tomb bi ci des ñu wax nan la ñuy séddalee tabaski nañ ko séddalee ndax ci sunu aara dangay gis tànkum njëkkeeg tànku bàjj nag fàll rey goroog yu kenn xamul da ngay gis buñ rayee xar mi fu nañu law-lawee ab tànk wala ab baat jëmee fa day mujj sax léeg-léeg boroom xar mi mën naa dem ba waa kër gi sax mën na loru nga xam ne ne buñ séentuwut leneen luy jógee feneen ñoom xar ma dootu leen amal njariñ ndax tas nañ ko séddale ko ba bu dee njóobeen wala njaayeen wala ndaw ko ndaa day mujj xol ba tàng jër te loolu lépp yàlla tegewu ko yonente bi tegewu ko moom waaye moom moo ko teg boppam wala société bi ñoo ko teg mu nangu ko te mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddale woon na am tabaski bu yàgg noonu na dees na ci xewlu dees na ci denc dees na ci saraxe kon ñetti yi rek la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle ñu def ko ci ci ci am tabaski waaye nag séddale gi ñu séddale tànkum nangam ak fàllare nangam yooyu saxut tey du diine du lislaam eh, saraxe itam boo koy def bul saraxe la nga xam ne ni boo ko lekkut boo ko saraxewut da nga koy sànni lu mel ne yëree biir ya nga xam doy woo ko dara nga ko saraxe déedéet da ngay saraxe ci la la nga gën a bëgg ci xarma wala tayammamul xabisa minhu tunfiqun eh, lan tanaalul birra xata tunfiqu mimma tuhibbun kon kuy kuy kuy saraxe ngir yàlla itam da ngay joxe lu baax da ngay joxe ca la ca la baax ca ma nga saraxe ca la ca des nga xéwalu ca la ca des tamit nga denc ko ndax yonent bi wax sunu borom tabaaraka wa taala kat dafa teey te lu teey rek lay nangu inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba kon yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la yàlla na sunu borom tabaaraka wa taala dimbale nañ ci bàyyi xel wax ndax tabaski jaamu yàlla la jaamu yàlla nag danga koy defee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 in uridu illa al islaaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ausu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim